92 00 salamualaikum, salaamaaleykum naka talakh lax réew rakam-rakam, rakam ji dajj dajj jek lay lay bay Bassirou Diomaye Diakhar son excellence ci faire pele ku corrigé yakam xam la sutup koccu barma bi nee 17 6e mois 1937 ak kaddu balaji plus précisément nak plus précisément ginaaw yowmal qiyam ci faire pele ku corrigé yakam attachez vos ceinture immédiatement dajj dajj bay gan geey dani ji lay lay bay Bassirou jomay jaxar fay tukki tukki mi ci réew mi ku ne nan tukki bay Bassirou nee na ngeen fomm ci fer pelé waaw waye duma ci taxaw man li intéressé wu intéressé wu tukki tukki mi ci réew mi ku ne nan tukki ni bay Bassirou neen du ngeen dem am ngeen pass waye du ngeen dem man lolo intéressé man c'est qui m'intéresse

ay waaye ndaw Samba kontaan continue koroñole <laughs> barke yow xuloo jël basar dëkk yéene kaay xëy fësal ni Sénégal bari nay woppitaal de waaw bari nay woppitaal de waa feeñal digital xëy fësal ni ginnaaw dalal xel am na ci réew mi est-ce que duñ ci dolli dalal xol nangeen def ak coono du saay wax nag ku kurise yàqam du saay wax de mi ngi nii waa feeñal digital ko xëy bind comme Sénégal jaayante na ba am dalal xel ci réew mi wala ay dalal xel ci réew mi nañu jaayante tabax benn dalal xol ci faire pele parce que nag euh, non dalal xel xalaat la nag xalaat la feeñal digital buy booy nañu am inspiration de <laughs> quelle inspiration de l'année du saay wax de feeñal digital ko xëy bind yëgle ko nee na ginnaw am nan dalal xel ci mim rew da war wara tabax ci pegg bi ci ruq bi pegg bi war mbiic ci ah xam ngeen limay wax ci ruq bi ngeen tabax ta dalal xol wa parce que day bax dajj dajj bay bugan gay daneeg lay layam tay ci lay taxaw ci fer pele actualité barré tous les actualités sont barrées aujourd'hui on sur bugan gay dani bu len faté le 17 sunu le 17 ndax yëfi ñëpp la fi ku ne nga ca ci fer pele le 27 Baye Sonko woote na grand théâtre ci fer pele ku kurise yaa xam man xërisatub kocc bi ci fer pele daj dajji Baye Sonko jeeg layi layi ji <laughs> ku ma fa dëgg nee ma mas maa bëgg xew <laughs> akama bu ni ma bëggee xew <laughs> nee na coono dama ko namm sax waa waa ji gëj nañoo gise de am nga jàmm soo soonu Baye Bougane Gueye Dany xëy na yëy yaab bi man xërisatub kocc bi may wax Euh, ma xool seen kii peu. sax ñoom ndaje mi ma may image regardons les images. il faut mu tu loo xam ne da ngay di nelaw ah un def petit combat 4-4-2 <laughs> la classement bu bi la. barke es un da ngay jaay rek yow ma Tu ko bu xam muy lay lay <laughs> la première séquence Bay Bougan, gaming, mi ngi moom Bassirou Diomaye Diakhar pour xamal len waxi dof manam manam décortiquons aujourd'hui c'est la science qui fait peler décortiquons les paroles des fous qui sont en train de marcher dans les dans les dans les personnes les personnes. yaa xam xam ngeen li ma bëgg wax manam dof yi ne ci bir nit ñi <laughs> seeni parole la ñuy jana suge tay dof yi nga xam ni yàlla dina def ay dof ba paré mais waxi nit lañuy wax bobu dof nak du wër barke yow khulujil basar sama maam kocc dof bay dof lo koku fajj ko mituwul waye dof bi def yefi nit mana sanse yalla bu mu yorub xaalis nak bobu dof du wer bobu dof du wer boko timé diko fajj sax day yakane koy fajj yaay dof bi la première séquence de Bougane gay dani neena na Bassirou jaxar fay bamuy def discoursam dama xamul nak ban discours la ci discours yi ku corriger sa bop attachez vos ceintures immédiatement Bougane gay, ñëwal fofu, ñëwal fofu ma ñëw pour rek xamal leen ngeen comprendre manam waxi dof manam bougan, bougan dof la barke yow mal xuloo jël basaat non tu fou non tie fou gars écoutez les paroles attentivement la première séquence s'il vous plaît écoutez attentivement xëri le satub kocc barma bi jana sigon les paroles de Bougane gay dani. pour xamal leen ni Bougane Gueye Dany dof la wala dof sax pilis deglu len limi wax ki <laughs> neuma ni nga don chef de quartier ci rew bi mais ça reste beaucoup de l'année pour corriger sa bop xanaa 2800 ñëwal Bougane nga ne bàyyi Diomaye bi mi def discours. mom bi mi def discours am deuxième partie man njiitu gëm sa bop posté na sama réaction parce que fekk na man bind na lamay bind ba pare parce que xamna naa la mu doon. bàyyi Bougane Gueye Dany nee na Bassirou Diomaye bi mi def discours bi premier parti bi jàllee manam discoursu Basirou Diomaye Diakhar Faye bi mu la premier partie en français deuxième partie, bi avant mo daw Bougane Gueye fekk na mu tiwite limi muy ba pare def réaction ci sa si xam la wax est-ce que vous avez entendu aujourd'hui c'est la science maintenant si Baye basirou Diomaye Diakhar Faye a fait un discours parce que le président s'il doit parler, on va tout écrire. Le président va faire discours. Ça dépend. le président bi français la koy wax ak olof. Bari na président ba wala ma yu bari dañ fa deuk man nako def ci ci langue yu bari mais Sénégal français non c'est la science bu kenn ku cotiser yaa xam ku yàkkamti yaa fa jaay keccax Bougane Gueye il faut revenir dans la question. moom bi muy def discours deuxième partie man njiitu gëm sa bopp posté naa sama réaction parce que fekk na man bind naa la muy bind ba pare parce que xam naa la mu doon. voilà maintenant président bu defee discours premier partie mu wax ko en français man xëri ma dégg français.

bu premier partie discours am jeexee automatiquement rek day tiwite parce que xamna lim bëgg wax ci olof té discours yépp doon benn discours nga dégg français di dégg li Baye Bassirou Diomaye jaakar fay di wax ci français mu wër la ni ki limi wax ci français mom lay wax ci wolof. maintenant bugaan mi tamit est-ce que jotul ñu yóbbu ko dalal xel xawma ba xam comprendre ngeen limay wax xëri la sëtub koccu barma bi non ki dof na nak <laughs> la deuxième partie s'il vous plaît. da ngay jaay fit rek non tey damay science la science à toujours raison donte ko parfois ñu nërmeelu nag ñun scientifique yi ok la deuxième partie s'il vous plaît Baye Bougane ok la deuxième partie s'il vous plaît Baye Bougane Bougane Gueye Dany nee na ci ay kàddoom kii di Ousmane Sonko mësta maanaam mësta yor état mësta gouverner mësta yor maanaam mësta liggéey liggéey boo xam ni kii war naa manaam a am ci ci ci ci gouvernement. léegi Bougane Gueye la deuxième euh, réponse mu Ousmane Sonko ñëw ci ñëw ci Bougane naa def coono. juuti a def si àdduna. <laughs> tu vous avez entendu Bye Bougane nee Ousmane Sonko ci àddunaam dagg juuti kese kese kese kese kese la masse a def ci n'est-ce pas yéen a ko déggandoo bu ma kenn xëri waxal nga Bougane lu mu xamul lulul dul fayeeku juuti ta mom mu war ño fay ay juuti kon bay bu wan xam nga ne di nga fay. ya ko wax de eh yaay wax yaay ton sa bop dagg juuti dong lu sa def si ta <laughs> nga yoral ñu juuti yu bari way sallaw bay bu ga na rek ciono di nga fay de <laughs> kon yow fay ñeel na la. comme yow sa bop dem nga ba xamne ne sunu président bii wala suñu premier ministre bii ko juuti mom ci bop bi la ci xam-xam la ci am il est très diplômé en matière de ko juuti. <laughs> ta nga yoreel ñuy juuti <laughs> coow li oh <laughs> oh waykat bi woyoon na ko de nee na as équipe booy kii la booy abu cubaloo woy na ko woy na ko nu neex waay coow li coow yi xaw ma gaañu amul baag la coow ci pidut waaye abu cubaloo noq na ko woyee lu neex nag ñi ko woy bari na rek mais abu cubaloo ni mu ko woyee neex na c'est que abu cubaloo mu ko woy dafa laal mbaar mbëpp njool ak njollit coow li coow li coow le wàcce ci suuf coow la ca pindub teen ba gaañ amul baax la ku kurise yaa xam <laughs> pour xamal leen dof rek maanaam dof maanaam day wax bëgg a xas Ousmane ko bëgg koo humilier mais moom ci boppam moom bugaan day fekk moom boppam maanaam lay humilier te xamul ni mi ngi humilier boppam lépp nag lalu ci ay fenn ndax bu leen fàtte ne kii di bugaan gay dani xam ngeen ku muy liggéeyal nest Macky Sall lay liggéeyal. ok attachez vos ceintures immédiatement. da ngay jay fit rek yow do ko defal. la troisième réponse de Bougane Gueydani bu problème amé ñu jël sen ay journalistes jël sen ay chroniqueurs jël sen ay tiktokers yenn say sax nga gis légui caméraman yi sax légui dañu shot manam kàddu yoy ba nga insister nga warona bayyi xamni lolu ay fen la. maanaam ba nga insister rek xam nga dangaa wax bu problème amee parfois ñu jël seen ay journaliste jël seen ay chroniqueur jël seen ay tiktokeur daat ni jël seen ay caméraman yi sax léegi dañuy da da da da dañ non non non Baye nag Baye Bougane nag tu es nag en matière de marchandise moom tu es le <laughs> maanaam maanaam kii non Bougane nag vraiment yow man xaw ma ban xeetu politique ngay politique <laughs> xanaa da ngaa ma soon nekk Kenya yow ah Bougane da ngaa ma ne xanaa bi ngay jàng da ngaa ma soon def Kenya stage <laughs> Baye Bougane nee na caméraman yi sax léegi dañuy sot maanaam les cadreurs xanaa kon monteur yi tamit ñu ngi sot <laughs> xanaa da ngaa ma soon dem ci xew daje fa ak Baye kenn filmé la. <laughs> billaay kii mën a nettali kii non bugaan kii non li li gars yi le pays dalal xol ci réew mi non ñu ngi koy réclamer dalal xol parce que nag en plus bugaan bugaan euh, bugaan tiktokeur yi di nga leen bàyyi de xanaa da laa déranger xanaa puub yi ma lay puub ci bi da laa metti yow ah naa def xanaa li ma lay biir buy daw yi ma lay dóor ci internet da laa dama xam ne bugan sa yo waxee tiktoker yi yàbbi biñu nak ah <laughs> yàbbi biñu yàbbi manam rew me changer senegal mo changer dafa am lu la metti ta nanguwoo ko wax ndaysan muy feus ndax xam nga ni boko waxe sa bop yow nit ñi nan xam ne yow manam politique taxul ngay wax wa politique taxul ngay wax parce que publicité yu bari dañ ko jël leg eh publicité yu bari tiktoker dañ ko nangu te lay <laughs> doxatul de <laughs> ma ne ko jëkk Karma salah nak laf bus publicité bari rek tiktoker tiktoker magi waxuma la sama genre gi de <laughs> mais tiktoker magi publicité dañ ko jël <laughs> dañ ko nangu té lay luñu warona lek rek tiktoker ye koy lek youtubeur yi ak site internet yi <laughs> ta bu weer dee nga fay emploi motax gaay dañuy rek ki la ya mana la quatrième question ou la quatrième réponse de Bougane Gueye Dani bukan ñewal ci lolu ma tejj débat bi parce que son na ci yow gennu beuy nga muuroo taat dàqoo weñ barké yowul xulo jël basar non bukan gey dañu genn way ko suñ mbëtt nga fu sét nga lal ko na nga def ak cionam nga jàmm xëri la ko ci barma bi newoon na la ku nu doxat ñu day la damay bëgg son ci yow nak parce que euh, man damay bëgg ñu waxtaan ci xam-xam ma mais parfois da ngay genn ci dof ma te moi je suis un duma dof quoi man duma dof <laughs> man damay bëgg man damay bëgg di waxtaan ci xam-xam hey damay bëgg parfois ñuy waxtaan ci xam-xam quoi niveau waaye li amul benn niveau dëgg yàlla ñëwal ñëwal ci doom ji ñu ñu ñu tëj science bi nee na doom ji suma suma dom bi dafa ñëw fekk suma nek sac noir bi ma tek ko ne mais papa j'ai vu que ce sac là est toujours là ça bouge pas mané ko oui c'est mon sac pour la prison ya mën a fen non ki mënul fen dank sax <laughs> xolal ma yi xéti nitili bàyyi bugat ñewatal ci saag bi suma suma dom bi dafa ñew fekk suma nek sac bu noir bi ma teg ko mais papa j'ai vu que ce sac là est toujours là ça bouge pas ma ne ko oui c'est mon sac pour la paix ya ma la fen yow L80 toppewu la dara yow L80 du la top bo doon offenser sax chef de l'état kenn du la kenn du la kenn du la convoquer parce que wax deug yalla yow da nga am place dalal xol parce que sa xol day four comprendre nga maintenant bis dinañum wax ko franc ñu jappu ñaf ci kaso bi boo comprendre nag ci xeeti manipulation ya woon ba tey moom système boobu lay doxee da ngay wax da ngay da ngay tooñ xëri xëri war laa convoqué nga attaqué gouvernement bi ñu ni tombe xam nga li sama maam kocc naan tombe day waral ay gaaf ñu jàpp la yóbbu alors que yow ñu bari léegi ak seen nit li ñuy xëy communiqué mooy dafa arrangé wul gouvernement bi li muy wax moo tax ñu jël ko yóbbu fekk xëri nga yoreel 1500 mu porte la plainte loolu ñu ngi koy xaar. yàgg-yàgg ci ŋaam ngay fanaan parce que impôt yi da nga koy fay bis bu ñu la yoonoo yóbbu nag bu fi kenn taxaw naan wéy li muy wax dafa arrangé wul gouvernement bi moo tax ñu tëj ko beneen bi ci topp mooy bugaanooy bugaan yaa bugaan nag man ngaa nettali non bugaan del wax dëgg nag ah léegi mu jóg ni moom ci biir discours bi day yàq Ousmane Sonko <laughs> asalaamaaleykum ñoo ngi jàkkaaroog Serigne Saliou Mbacké di sët ci Serigne Touba waaye di sët ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara borom gi waaye di sët ci Cheikh Sidi ki fi nekkoon xalifa général des mourides di sëtteem xalifa Serigne Touba waaye di sëñ bi ñu dikk yow ci fas gi nga xamante ne yaa ngi koy joxe fas gu am solo gi lan lay jariñ ak lan lay faj waaw fas gi ginnaaw ba nga xam ne jébbal nañ sëñ Serigne Sidi di suñu maam jébbal nañ ko suñu kamil si lañ jox ak kàggu kàggu gi lu bare bare bare ñariñ lu bare bare si la nekk fas gi nak sax kàggu googu lañ ko jëlé fas gi awrawu lax awrawu noy képp ko xamné ne boo rajo rek soxla ngay gaaw ag ak lépp luy jafe-jafe feebar feebar gaaw ag am yu démé ni ki noona bo takkee fas gi inshallah allah di nga takk di nga fas gi itam bu nekk sa ndig jafé jafé lo lek day res jafé jafé ndig jafé jafé tànk yu metti bëpp feebar bo xamné ci jumax la ba sa tànk inshallah rabbi boo fas gi di nga saafar di nga loolu dina saafaraw ñaara ba tamit képp ko xamné suñu borom dogal nañ nga bëgg lu mel ne wàllu seet ak wàllu listixaar incha allah rabbi bu dee suñu borom dogal nañ nañ incha allah li nga si am sa saafara ñetteel tamit mooy képp koo xam ne bëgg nga jafe-jafey noog noog gu mu doon bu soobee yàlla bu ñu la ko joxee 24 heures lépp loo xam ne wax nañ la ko si noog bu neexee yàlla di nga ko gis